mën na ko dagg ci juyale mooy day dagg loxom ndeyjoor ba ca tikku jara ba dagg tànkub càmmoñ ba ca dojoor ba loolu mooy dagg gi ci juyale wala boog mu dàqi ko ci dëkk bi yóbbu ko ci beneen dëkk ba kera muy tuub tuub gu wér wér mu door ko bàyyi mu dellu si yooyu moom mooy seet lu mu ca def rek baax na moom mi atte mooy seet lu ci jekk ca kooku rek mu def ko fa in lam yuqdar ndéem attaneefut xaalihi ci moom maanaam bu fekkee jekk wuñ ko rek xataa jaa ba mu dikkal boppam taa iban mbir muy aji tuub wudiha kon sippeef xan walis ko kulu xaq jépp àq huwa jot moom lillahi ñel na yàlla min zalika ci loolee wa uxisate jàppeef ko bi xuqooxi naasi ci àqi nit ñi min maalin ci alal aw damin wala deret bu fekkee ne ki daan def karaate boobu ak nangu alali jàmbur yi jekk wuñ ko ba mu jekki-jekki ñëwal boppam ne day tuub kon lépp loo xam ne dañ ko seet muy wàllu yàlla rek mën nañ ko koo teggil bañ ko koo teg waaye nag lépp loo xam ne tooñan na ko doomi aadama faaw ñu fayul doomi aadama joojee bu dee deret yi doomi aadama la tuuroon faaw ñu tuur deretam bu fekk alal jàmbur la jëloon faaw ñu nangu alalam mënta ñàkk waaye lu mel ni rey gi nga xam ne ilimaan sañoon naa jékki-jékki def ko ko doonte reyut kenn loolee moom dañ ko koy daal teggil fekk reyutoon kenn moom kenn du ko rey wa kullu waahidin kenn ku ne minal lusoosi ca sàcc ya da ko tudde sàcc ya waaye adu kalpe yooyu muy way ruggo yooyu lay wax daaminun aji gàddu la li jamihimaa ñeel mboolem la nga xam ne sala boobu rekki nañu ko minal am waa li ci ay alal ñi def ruggoo boobule muy addu kalpe ak lu ko nuru suñu dee ñaar mbaa ñett def ab groupe kuñ ci jàpp rek day mel ne ñëpp lañ jàpp yow yaay garanté daal di fayal ña nga àndalan te jàpp ñu leen loolu nag wóote naag bu fekkoon ne sàcc rek la bu doon sàcc alal rek moom ñaar def ko mbaa ñett kuñ ci jàpp itam yow ci sa bopp la nga jël rek lañ lay topp nga fay ko waaye la keneen jël moom deesu la ko fayloo boo tax saraa bi naa la wal muraadu bihi al muxaaribu wa laysa al muraadu bihi as saariqa ndax wa amal mujtamixoona ala sariqati fa kullun muxaatabun bima axadahoo xaasatan wa tuqtalu def na rey aljamaaxatu mbooloo bil waaxidi ci rey kenn fil xiraabati ci rugooga wal xiilati ak yongo wa in waliya ak doonte méngoo woon na alqatla rey ga waaxidun kenn minhum ci ñoom mbooloo bu ñu reyee kenn waaye nag rey ga day rey gu rugoo maanaam dañ koo kar ca yoon wa mbaa ñu jàpp ko foo xam ne bu yuuxoo kenn du ko dégg bëgg nangu alalam tax ñu jàpp ko rey ko mbaa boog yong bi nga waxoon yong itam noonu la xaw a mel ndax mooy tëru nit rey ko ngir fab alalam rey yu mel noonu dafa mën a yàq adduna bi ba kenn du xam luy dund moo tax bu ko mbooloo defoon kenn képp rey ko it du tee mbooloo mépp la ñu rey donte xàmme nañ ne kenn ca mbooloo moo ko ci rey it du ñem ci rey kenn kooka waaye ñoom ñëpp la ñu rey wa yuqtalu def na rey almuslim mu jullit ba di xatli zimmi yi ci rey kañ fasal walëre xatla xiilatin rey yong aw xiraabatin wala ak ruggoo ab jullit moo ëpp daraja ab yéefar bu rey ab yéefar te rey ga du rey yong du reyu ruggoo kenn du fayu ci moom waaye nag li muy nekk nekk jullit bu reyee kuñ fasanteel walëre te rey ga nekk reyu yong wala reyu ruggoo faw rek ñu rey ko ndax yooyu yaar mën nañu ko leerale léegi daa mën a yàq dund gi ci kaw suuf moo tax wa man zana ku njaaloo min xurrin ci gor muxsanin ku di ku ñu sengiwul rujima kon jameef ko xataa yemoota ba ba muy faatu day ñëw ci àttem njaaloo koo xam daa njaaloo te gor la jullit la mu kàllaf la moo xam góor la moo xam jigéen la su njaaloo te fekk mu sengiwu daana wax lan mooy sëngiwu léegi fekkee mu sëngiwu daal dañ ko war a sànni ay doj ba keroog muy faatu doj yi nag day digg doomu du nekk doju rëy rëy bay ñaawal aw yaramam du nekk doj yu tuutee tuuti ba nga xam ne day yàgg te du dee day nekk doj yu dikk doomu rek buñ koy sànni doj itam nañu wattandiku di ko dóor ca kanam nga mbaa sawukaay ba déedéet dañuy dàkk rek gannaaw ga ak biir ba yooyu moom la ñu dàkk buñ koy sànni doj yi wal ihsaanu sengiwu nag an yatazawaja mooy mu takk imraatan jigéen nikaahan ab takk saxiixan bu di aji wér wa yataaha tem koy laal watta an ak laal saxiixan guy aji wér daa wax ne ku njaaloo te sëngiwu moom la ñuy jam ay doj ba ba muy faat mu ne sëngiwu nag mooy bu dee góor ga mu takk takk boo xam ne yoon nee na baax na joteeg kookee mu takk joteeg góor gi jigéen jote goo xam ne gu wér la ni ki jote wut ak moom sax ci fekk jigéen ji toll ci mbërëg amee dereti mbërëg mbaa dereti wasin nga xam ne bu jote woon ak moom fekk mu amee dereti mbërëg mbaa dereti wasin dañuy jàpp ne ba tey taxu koo sëngiwu moom daal na ko takk-takk bu wér joteeg moom jote gu wér su ko takkee takk boo xam yoon nee na baaxut bu joteeg moom it xu koo sengewu bu takk ba wéree te jotoo ko moom doon ci jamono yi mbërëg mbaa wasin itam dañuy jàpp ne sengewut jigéen ja itam ba ko góor ga takkee bu joteeg moom jotee bu demee noonee xam takk ba baax na jote ga wér na kon jigéen ja itam sengewu na ko defee ñoom ñaar nag ku fi jógee ti njaaloo àtte bii lañ lay def muy àtte rey fa in lam yuxsan ndéem sangiwuloo fu ko julli de kon dóoreef ko bi atta jaldatin téeméeri yar wa garrabahu te tumurankeel ko al imaamu ilimaan ba ilaa baleen ba ci ab dëkk aaxara baneen waxu wista te tëjeef ko fii ci moom xaaman at bu fekkee ne moom manjaaloo muy góor muy jigéen taxul mu sangiwu ni ki moom farutoon takk wala bu dee jigéen farutoon sëy mbaa sëyoon na waaye sëy ba werut mbaa faruñu jote ba jote woon nañu waaye jote ba daa nekkutoon ci nañ ko taamoo ni ki day jamono yu mbërëb mbaa wasin yëpp ñàkk sengiwu la kon moom ma njaaloo dañ koy dóor téeméeri yar ci kaw nag muy gor te bu fekkee ne jaam la moom dana ko wax léegi xaajub loolu lañ koy dóor muy juróom fukki yar bu dee góor nag moom dañ koy tumurankeel mooy dañ koy dàqee ci dëkk bii yóbbu ko ci beneen dëkk boo xam ne war na fee sori sori waayu doxum ñetti fan bu dee jigéen kenn du ko def waaye bu dee góor daañu ko def loolu foofee ñu ko dàq yóbbu fa dañ ko fay tëj diru at door a nangu mu dellu si waxalal xam di war na ab jaam fi sinaa ci njaaloo xam soona juróom fukk jal datan ci ay yar waka zalika naka noone al amatu jébéer alxabdu day firi jaam bu góor al amatu di firi jébéer jaam bu jigéen mu ne nag kum ci man doon bu fekkee dafa njaaloo dañ koy caw juróom fukki yar muy xaajub gor wa in kaana ak doonte nekkoon nañ ñoom ñaar mutazawwijay ni di aji sëy doonte sax ñoom sëngewu nañ la bëgg a wax du tax ñu rey leen kay njaaloo bañ di ko rey day fekk mu nekk gor waaye bu fekkee jaam la moom doonte sëngewu na itam dañ koy caw rek bàyyi ko te caw ga it juróom fukki yar lay doon wala taxariba deetu tumurankeel xalayhima di war ci ñoom ñaar ba tey jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen bu njaaloo itam bañ caw ko rek ca lañu yem kenn du ko dàq ci dëkk bi yóbbu ci beneen dëkk wala xalam raatin du caagéenu jigéen jigéen day aajowoo mu nekk ku koy aar ba mu ñoŋ kon nag jigéen moom bu njaaloo te fekk sëngiwut buñ ko cawee yar ya kenn du ko dàq ci dëkk bi di ko yóbbu feneen ndax kon kon bu bëggee njaaloo kam njaaloo loon bu njëkk sax kooku mën na koo fekk si foofa ak yu demee noonu ba tax jigéen moom kenn du ko dàqee ci dëkk bi di ko yóbbu feneen wala yu xaddu deful gétan azani aji njaaloo ja illa bi i'tirafin dara ci ak tudd aw bi xamlin wala ci ab ambu yazharu bopp dana feeñ li ñuy xamee ne nag kooka mooy na yàlla njaaloo na mën naa amee ci mu ànd ak sagoom di magum jëm waxal boppam ni man njaaloo naa su boobaa kon ñu topp ko ci loolee mu wax teg ko la ca yoon waral wala boog muy jigéen amul jëkkër bu dee suñ jamono ji mu toll bu doon jamono yu njëkk yi nga ne amul jëkkër amul ab sang buy sañ a joteeg moom tam jékki-jékki ëmb yi jàpp ne kon ci njaaloo la ko amee daal di koy war a def lañ war a def ku njaaloo aw bi shahadati arbaxati rijalin wala ci seedes ñeenti góor axraari ñu di ay góor baalixiina ñu di way kàllafe odooli ñu di way maandu yaraw na xoo ñoom danañu ko gis kal mbir wadi mel ne ab tusngal fil mukkulati ci ndabul tusngal wa yashhaduuna tañuy seere fi waqtin ci waxtu waahid mu di wenn loolu nag moom mu amee ni ñu ko bëggee néewaana lool lool mooy ñeenti góor seere njaaloo ga xam ne jigéen amu ca ñoom ñëpp ñu di ay gor jaam amu ca ñoom ñëpp di ñu kàllafe gone amu ca ñoom ñëpp maandu kenn ku ci matul seere amu ca ñu gisandoo ko ci wenn waxtu gis gu leer goo xam ne ñoo gis sawukaayu góor ga muy dem ci sawukaayu jigéen ja ni nga xam ne moom la kuur di mel ci gën wala boog ni tusngal daan mel ci portu tusngal ba maanaam lay denc tusngal ba ñu gisandoo ko ci wenn waxtu gis nga itam maase nga xam ne bu ñu leen beree laaj leen kenn ku nekk na nga wax ne moom nga gisee ak na sa moroom gisee yépp de doon benn loolu tombe ca bariwut waaye nag bu tombee amee nii nag kon googu njaalu sax na daañu war a géttan kookee nga xam ne moo def njaaloo ga ndegam sart ya daje na ca ni ki kenn forcé wu ko ca mbaalu demee noonu wa in lam yutimma ndee matalut ahaduhum kenn ci ñoom asifata melowa xodda kon gétaneef ak talaasatu ñett ña allësina ña nga xam ne atam muuhaa matal nañ melowa ñeent ña buñ leen dee laaj ñett ñi wax ne nun daal danoo gis bu wóor a wóor sawukaayu góor ga di dem ci sawukaayu jigéen ji nga xam nattabli woon ko ñu laaj kenn ka mu ne man daal gis naa mu toog ci kaw ay luppam waaye nag mënumaa dogu ci jote gi am na bu wéram deet kon dañuy jàpp ne ñett ñooñee wax ne ñoom gis nañ bu wér a wér njaaloo ga waxal nañ koo kee njaaloo te saxut muy du wax alxas bu xaste waxal nañ ko góor googee jigéen joojee te teguñu ko fenn daal leen di géttan géttanu xaste mooy daal leen di caw juróom-ñetti fukki yar bu fekkee ay góor lañ bu dee jamono yi jaam amee tañ di ay jaam ñu caw leen kenn ku ne ñeent fukki yar mu des nag kenn ki nga xam ne moom daa wax ne ca dëgg-dëgg daal man gis naa mu toog ci kaw lupp yi waaye saa ba tegu ca ñu njaaloo dëgg-dëgg kooku moom des na ko yar bu baax a baax moom itam te ilimaan jaay seet lam ko yare doonte sax lam ko yare ëpp na yari gétt nit moom rek mooy seet moom ilimaan ba lu ci yet rek mu def ko ko wa tax sara bina wala xadda xalal rabihi bal yuxaaqabu bijtihaadil imaami walaw zaada xalal xaddi wala xadda déet géttan xalaa man di war koo xam ne lam yaxtalim géntut maanaam koo xam ne kàllafe wut su fekkee dafa njaaloo itam du tax kenn géttan ko moo xam moo def njaaloo ga moo xam dañ ko koo def dañ ko yar rek ndax mu yaru xam ne lu baaxut moom baaxut warees na koy moytu rek wayu xaddu def na géttan waati u amati waalidihi aji laal jébbeerub baayam wala yu xaddu te deful géttan waati u amati wala di aji laal jëbbeerub doomam koo xam ne daa fekk jaam bu jigéenu baayam mu joteeg moom dañu jàpp ne kon njaaloo na ndax duñ jàpp ne alali baayam alala ma déedéet saa yu joteeg jëbbeerub baayam rek ñu géttan ko bu wute naag nag bu fekkoon ne baay bi ci boppam moo joteeg jëbbeerub doomam kon la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxan kenn ne ko yow ak sa alal sa bàyyi leen moom day mel ne kon baay bi bu joteeg jébéeru doomam day mel ni daa joteeg jébéeru boppam doonu ko dëgg-dëgg nag waaye dañuy seet loola ba teesu ko ca géttan moom baay ba wattu xawwa mu def na ko xayma xale yi war ko wa in lam taxmil ak doon te ambut baay bi nag bu joteeg jébéeru doomam dañuy xayma jébéer bi lu mu war a jar baay bi fay ko doom ja te far ko féetiwoo su fekkoon ne doom ja xasoon na joteeg moom nag kon jeex na da leen di araam ñoom ñaar ñëpp du tee nag moom bu fekkee doom ji xasoon na joteeg moom bañ ne araam na leen ñoom ñaar ñëpp itam du tee rek baay bi fay doomam joojee xaymay jébéer ba ndax moo ko ko yàqal su ko defee nag baay bi bu fayee xaymay jébéer ba moo moom jébéer ba rek te du mën a joteeg moom ndax ndegam fekkan na doom joteeg moom mooy tax moom baay bi du mën a joteeg moom di wéy wayu àdd bu def na yar ashariku aji bokkaale fil amati ci jébéer ba yatta uhaa mbir moom da koo laal wa yadmanu tamit warlu qiimataxa qiimaam ja in kaana dem nekk na lëxoo di ko ñeel maalun alal jamono yi jaam amee ñaar mbaalu ëpp ñaar buñ bokkee jaam bu jigéen moom ko du tax ñoom ñëpp ñu mën a bokk di joteeg moom dañ koy moom rek muy seen alal ñu koy liggéeyloo mbaa leneen waaye ñoom ñëpp mënuñoo bokk di joteeg moom bu ci amee ku jekki-jekki joteeg moom nag te mu ëmb boole ja dañ koy wax ne ko yow léegi dañ koy xayma nga fay ñi nga ko bokkal seen wàll bu fekkee kenn rek la ko bokkal mu daal di koy fay genn wàllu xayma ja daal di féetewoo nag jébbéer bu moom loolu nag mooy bu ëmbee fa in lam taxmil lim ëmbut fa shariku aji bokkaale ja bil xiyaari nekk na ci tànn bay na añ yetta maasaka diggante mu téye wàllam aw tuqawama wala dee fi xayma jébbéer ba xaale yi war aji laal joojee su fekkee nag jaam bu jigéen ba ëmbul ci jote ga kon dañuy wax ki nga xam ne moom moom genn wàll ga te jotewut ak moom dara ñu ne ko yow kat sa waa ji nga bokkal jote naa ak moom waaye ambut la neexee nga bokk ak moom ba tey rek ngeen bokk jaam bi te du la jox dara ngeen bokk neen ko bokki woon rek bu la neexee itam ñu xayma ko rek bu ñu xamee xayma ja nam toll mu jox la genn wàllu xayma ja yow nga génn moom mu dese ko moom rek moom ko wa in xaalat ndem wax na imraatum jigéen bi xaajuj nekk na ci moom xamlun ëmb ne ustuk rixtu forseef na ma lamtu sa doq def ko dëggalal waxu dëtt gi te neef ko nee na jigéen bu fekkee ne amut jëkkër bu dee jamono yu njëkk ya amut ab sang bañ naa sang bee joteeg moom mu jekki-jekki ëmb moom jigéen ja ñu ne ko waaw kon na ngaa njaaloo mu ne déedéet dañ maa forcé woon waaye njaalowuma kon duñ gëm la mu wax dañuy jàpp ne rek moo ko coobare wu njaaloo daal di koy géttan illa an taarifa ndare bu dafa xam bayinatun ay seere ne annaha naka moom uxtumilat fëkkee foon na ko xataa waaba ba mu fàdd moom mu fëkk xale haa ca moom lu may na nga xam ne ay seere seere na ne moom day ak góor ëpp na ko doole jël ko ci doole ba làqoog moom gisatuñ ko kon bu ne loolee day ca la ma koo ko forcé woon njaaloog man kon loolu firnde la ju tax ñu dëggalal ko aw jaat wala mu dikk mustax yi satan mbir mu muy aji jàmbat xinda naasilati fa xew-xew ba wala boog nako ka kooka siif joteeg moom rek fi saasay saat mu daal di ñëw daal di koy wax jàmbat ko ne moom kat tooñ na ma jote naa ak man te warta joteeg man su boobaa daal ñu gëstu fi saasay saasa bu loolu wéree ñu xam ne kon dañ koo tooñ rek kenn ku gétan gétanu njaaloo aw jaat wala mu dikk tàdd mi mbir moom dana nàcc maanaam su fekkee day jigéen joo xam ne mësta sëy mu ne dañoo njaaloo man te sama sawukaay mi ngi nàcc ñu xool sawukaay ba muy nàcc du tax fi saa sañu daal di gëm ni wax na dëgg dañ koo forcé daañu gëstu ba xam loolu dëgg la am déet bañ gisee firnde ji wóor ne moom wax na dëgg dañ koo forcé su boobaa kenn du ko àtte àtte njaaloo waaye bu fekkee ne ñëw ga di nàcc rek ak wax kam wax rek ne dañ maa forcé loolu dong la duñ ca sukkandiku daal di wax ne wax na dëgg déedéet dañ koy gëstu njëkk ba xam noonu la amee wala déet wan nasraani yu ab nasraan ida xasaba ndem fëkk na al muslimata jus bu jigéen fi si naaj njaaloo xutti la kon reyeef ko ab nasraan moo ko yahut ñooye moo ko ci xam ne siif na ab jus bu jigéen daal di njaaloog moom faaw ñu rey ko moom nasaraan boobee mbaa yahut boobee wa in rajaxandem dellu na al muqirru aji saxal ji bi si naa ci njaaloo uqi la kon xàccaleef ko waturika te bàyyeef ko góor ga waxam ne man day njaaloo naa jigéen ba tey noonu la moo ko waxal boppam rek bañ nar ko àtte àttem njaaloo gannaaw bu suwal bitikoo ne ca dëgg-dëgg njaaloo wu ma moom daal mu lay dara ak mu ñàkk lay dara ñoo ci yemoon ndegam moo waxam ne man njaaloo naa daal bu wëlbatikoo rek ne njaaloowuma ñu bàyyi ko kenn ku gétan buñ demoon sax bari ko gétan muy daw sax ba tey ñu bàyyi ko wa yuqiimu dana sañ a taxawal arrajuluwaaja xalaa xabdihi ci ab jaamam bu góor wa amatihi ak jébéeram xadda sina gétanum njaaloo ida zahara ndem feeñ na xamlun ab ëmb aw qaamat wala taxaw bayinatun seere xayraxoo sudul moom arbaxatu shuhadaa te mooy yenti seere aw kaan wala am iqraarun ak tudd moo di ak saxal nee na jamono yooyu nga xam ne jaam dafa yaatu soo amee jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen bu wéree ne moom njaaloo na yow mi di ab sangam man ngaa jekki-jekki géttan ko léegi bu dee jaam bu jigéen ba mu jekki-jekki ëmb te nga xam ne ci njaaloo la ko jële wala yenn seere yu maandu ci neñ ko waxe woon seere sa jaam bu góor njaaloo wala sa jaam bu jigéen njaaloo ba tey kon yow mi sang bi mën nga koo def la ci yoon santaane wala nga xam ne jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen ba moo wax ci làmmiñam ne man day damaa njaaloo wax ko ci làmmiñam te kenn forcé wu ko ca ba tey mënees naa sukkandikoo ci loola ba yow mi sang bi nga daal di koy géttan walakin waaye inkaana ndem nekk na lil amati di ñeel jébbeer ba zawjun jëkkër xurun ju di gor aw xabdun wala muy ab jaam li xëy di si ñeel ku dul moom falaa yuqiimu kon du taxawal alxadd géttan nga xale xaa ci moom illa sultaan ndare àttekatu jullit ba su fekkoon ne nag jaam bu jigéen ba yàqu moom waaye am na jëkkër te jëkkër ja gor la mbaa boog jëkkëram jaam la waaye yow moomu keneen a ko moom su boobaa kon sa jaam bu jigéen boobu bu defee njaaloo googu bu mu tax yow ci sa bopp nga di ko géttan da nga ko yóbbu ci àttekat ba moom mu géttan ko ndax war ngaa sàmm àqi jëkkëram joojee di gor wala jëkkëram joojee di jaam te yow moomoo keneen moom ko wa man xamila ku jëf xamala xaw mi lootin jëfi nitu loot bi dakarin ci góor baari xin guy aji kàllafe ataaxaawoo goo xam ne coobare wu na ko rujima kon jamee fi leen ñoom ñaar uxsinaa moo xam sëngiwu loof na leen aw lam yuxsanaa wala sëngiwu loofu leen jëf-jëfi loot mooy góor war ci kaw moroomum góoram jël ab sawukaayam def ci bunt suufu moroomu góoram moomee loolu dafa ñaaw te waa loot daan ko def moo tax ñu koy tuddee jëf yi waa loot loolu nag ñaari góor ñu ko defante ñoom ñëpp lañ ñu rey moo xam singiwu nañ moo xam singiwuñu waaye nag daañu ci seet kàllafe ga bu fekkoon nag léegi góor da ko def jigéen nag kon ñu seet su fekkee ne jigéen jam ko def sañ naa jotee ak moom ni ki day soxnaam kon góor gi ko def loolu dañ koy yar bu baax a baax rek yar bu méttee métti waaye kenn du ko géttan géttalu njaaloo kenn du ko rey ngir loolee mu def bu fekkoon ni góor da koo def jigéen joo xam ne araam na ko nag dañ koy jàppe attem njaaloo daal di koy atte attem njaaloo géttan ko géttanu njaaloo su fekkoon ne ñoom ñaar ñu defante loolu moom kenn du ca mukallaf dañ leen di yar rek bàyyi waxalul xaas fi war na aji xaste ja alxurri ja di gor alxaddu géttan tamaanoona te moo juróom ñett fukki yar waxalal xab di war na jaam ba arbaxoona ñeen fukk fil xas fi ci xaste wa xam sunaa juróom fukk fii ci naa ci njaaloo xaste mooy waxal nit lu aju ci wàllu njaaloo te saxut loolu yoon da koo bañ lool ndax bañ ko yàq derub jaambur moo tax ku waxal nit lu mel noonu te saxut bu dee jamono yi gor ak jaam amee bu dee gor sa muy góor muy jigéen dañ koy caw juróom-ñett fukki yar bu dee jaam nag muy góor muy jigéen ñu caw ko xaaj ba muy ñeent fukki yar léemu ci tegaat na nag jaam dañ koy caw juróom fukki yar ci njaaloo ak baamu la rek sosale ci waaye waxal na ko léegi ci gannaaw wal kaafiru ab yéefar yu xaddu def na ko géttan til xas fi ci xaste tamaan yi na juróom-ñett fukk ab yéefar bu waxalee kenn doxtaan ki caaxaan muy njaaloo googu te soxut bu dee gor moom yéefar ba ñu caw ko juróom-ñett fukki yar waaye nag bu fekkoon na itam jaam la dañ koy caw genn wàll loola te mooy ñeen fukk wala xadda dit géttan xalaa xaasi fi xabdin di war aji xas jaam bu góor aw kaafirin wala ab yéefar jamonoy jaam amee ku waxal ab jaam daa wax jaam bu góor rek waaye jigéen tam ca la dañuy jàpp ne yooyu jamono jaam dawul am gàcce ci ñu waxal ko dox tànki caaxaan kon nag ku xas jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen ci yooyu jamono du tax ñu caw la yar yee ci war wa yuxaddu def na gétan xaadifu sabiyati aji xas xale bu jigéen bisinaa ci njaaloo in kaana dem nekk na misluha moroomam yoo taw dee fi ko laal jigéen joo xam ne bu dee ci at rek moom gone la waaye nag jëmm ji kàllafe na ba manees naa joteeg moom ku ko tuumaal ne ko yow mii njaaloo nga te saxut faaw rek ñu gétan la ndax yàq nga deram de sax bu ko waxan koo xam ne kenn mënta joteeg moom ñu xam ne kon daa ñaaw aw làmmiñ waaye amut waaye ndegam nag moom ci at du mag waaye jëmm ji kàllafe na ba bu bu ko waxee ñu gëm ko kon da nga waxal na ko ko rek waaye su na koo caw ndax tooñ na ko wala yu xaddu deful gétan xaadifu sabi aji xas xale bu góor xale bu góor ku ko waxal njaaloo du tax ñu gétan la ndax dañuy jàpp ne daayu su ko def gàcce ci moom waaw daayu su ko def gàcce yooyu jamono am na jamono yoo xam ne xale bu góor da koy def ndam kon nag xale bu góor ko waxal dox tànki caaxaan te amuti du tax ñu lay caw naa la tooñ nga ko wala xadda dit gétan xalaa man di war koo xam ne lam yablux kàll fi wut fii xasafin ci xaste wala wata indu ci ak yéenu ak laal képp koo xam daal moom kàll fi wut bu xasee keneen mbaa moom ci boppam mu njaaloo yi du tax ñu def ko gétan gi nga xam ne moo ci war déedéet dañ ko yar rek bàyyi ko wa man nafaa ku dàq rajulan waay min nasabihi ci askanam wa fa xalihi war na ko alxaddu gétan fekkee la ñu xam daal mooy diw mi diwoy baayam wala diw mi diwoy maamam ju góor soo ne ko diw mi ñu wax naa sa mooy sa baay du sa baay wala diw mi ñu wax naa mooy sa maam du sa maam loolu dàq nga ko ci askanam loolu xasu ñaaw la woo xam ne yow mi ko waxal loolu waris na laa caw waris na laa caw boo dee gor juróom ñett fukki yar bu dee jaam ñeen fukki yar ndax loolu moo gën a ñaaw njaaloo nga maanaam maanaam yow doomi njaaloo rek nga loolu daa moo gën a rëy yow njaaloo nga loolu moo tax nag ku dàq nit ci askanam askan ñu koy boole nga ne ko bokkoo ca faaw rek ñu war laa gétan gétanu xaste wa fi taaridi nekk na ci gaaral alxaddu gétan ba tey bu fekkee xappati woo ci digg ba waxal kooku ne ko njaaloo nga waaye dangaa gaaral mel ne koo xam des na ko ko waxal moo xam dëgg la moo xam dëgg nga den da moom naa ah man day du ma njaaloo xaw ma kuy njaaloo waaye man day man du ma njaaloo man loolu day mel ne kon nga wax ne ko yow li lay waxal dëgg la yow moomu yaay njaaloo wa man xaala ku wax dara julin ñeel waay di ko yaaloo te yu yow ko juglóot ki xodda kon géttaneef ko maanaam ba tey ku askan nit jëme ko ci jëf ju ñaaw jooju waa Lóot daan def te mooy góor war moroom góoram jël ab sawukaayam def ci buntu suufam loolu ku askan nit jëme ca loolu moo gën a ñaaw njaaloo kon ku ko waxal nit ñi daal lay caw gétanu xaste te waxal nañ ko léegi bu dee gor koy caw juróom-ñett fukki yar bu dee jaam ñeen fukk wa man xasafa ku xas jamaaxatan mbooloo fa xaddun gétan waahidun gu génn yel sama fa dana ko war li ma ñel ka nga xam ne xaama taxaw na bii ci moom min hum ca mbooloo ma su ma laajee topp di dara xale yi di ko war maanaam ku wàqanteeg mbooloo ñoom ñëpp nga xasadoo leen nga xam ne ci benn baat rek nga wax ne leen ki ñaar mbaa ñett mbaa ñeent nga ne leen yéen ñi doxkati caaxaan ngeen maanaam jëfkati njaaloo ngeen xam ne kon am mbooloo la xasandoo ci benn yoon bu kenn ca mbooloo ma taxawee rek yóbbu ko ci yoon ñu caw ko rek daal ne doy du aajowoo ñu wàññi na mbooloo ma toll kenn ku ne ñu cawal la sa yari bopp dañ ko cawee benn yoon rek mu daal yóbbaale ñëpp ñëpp wa man karrara ku baamu shurbal xamri naan sàngara aw zina wala njaaloo fa xaddun gétan waahidun guddi genn fii daalika nekk na ci loolee kulli ci léppam koo xam ne naan na sàngara ay yooni yoon kon duñ wàññi yoon yi nam toll yoon bu ne ñu gétan ko ci ñu koy gétan benn yoon rek mu yóbbaale yooni yëpp ba tey koo xam ne njaaloo na ay yooni yoon duñ wàññi na yoon ya toll yoon bu ne ñu cawal ko ay yaram déedéet dagam cawa ca war buñ ko cawee benn yoon rek dana yóbbaale yoon yëpp bu fekkee rayee ci war ba tey buñ ko rayee jeex na su fekkee la waral gétan nga lenn la kooko da ko def nag defaat ko defaat ko buñ ko gétanee benn yoon rek mu doy du aajo wo ñi wàññi na yoon ya toll yoon bu ne ak géttanu boppam wa kazalika naka noonu man xasafa ku xas jamaxatan mbooloo am na ñu ne man xasafa jamaxatan ji du ak baamu ak leemu la waxoon léegi ndax leemu la waxoon mooy dafa jàkkaarloo ñaar mbaa ñett mbaa ñeent ñoom ñëpp mu waxanteeg ñoom ne leen doxkati caaxaan ngeen xam ne benn baat la leen boole waxandoo leen ko fii nag moom dafa gis kenn xas ko waxal ko baat boobu gisaat keneen waxaat ko waxaalaat ko keneen te du ci benn jataay xam ne kon dafa teqali ko buñ ko géttee ne benn yoon rek mu daal di yóbbaale ñëpp ñëpp te tax ñu wàññi na ñooñee toll kenn ku ne ñu defal la sa géttan wa man lasimat fu koo xam ne war na ko xudoodun ay géttan wa qatlun aku rey fal qatlu kon rey ga yu ji siw dana doy xan zalika walis loolee illaa fil xasfi dara ci xaste moom fal yu xadda na géttaneef ko qabla an yuqtala njëkk dee fi ko rey koo xam ne ay géttan da koo war ñu war koo rey boole ca niki moom